kon bu xaytee ganaar xamoo taq na la wala taqu la lu mel noonu li nga gis moom xam nga ne jëmmi sobe la li ngay natt mi kay mooy ndax laal na la wala laalu la day war nga wis say yére bu dee say yére bu dee fa ngay nga wis ko ngay jekki-jekki as ndox rek daal ci wis boo wisee benn rek mu doy bëgg rek nga jax-jaxi sama xel bañ a yàqu ci loola mu des nag bu fekkoon ne sa yaram la bu doon sa yaram nga koy fa raxas benn yoon xam nga yaram moom raxas du ci wàññi dara kon sa yaram moom booy sikki sàkk ba xam soo bubee laal la wala laal la sa moom da nga koy fa raxas benn yoon moom foofu ngay sikk sàkka waaye bu doon ay moom baa fa ngay jullee moom boo ko wisee rek mu doy teg waaye nag wis googu lu war la doo ko sañ a jullee te wisoo ko wala nekkut nekkut nadoxun ak wis xalal lësii di war ka nga xam ne xaddu shakk sikki sàkk na fii najaasatil musibi ci sobewuk aji jot ja sobewuk aji laal ja irif na nga xam daa wax ne bu fekkoon ne nag daa am la tax ba noppi ngay nattali ba xam sobe la am du sobe yaar yooyu dañoo xaw a mënatu bokkuñu booy wee nga weesu moom xam ne wóor na leen ne la la nga doon natt bi kay ndax laal na la wala laalu la kooku noonu day war nga wis wala la ngay jullee te sa yaram nga raxas ko fii nag daa am lu tax ba noppi ngay nattali ba xam sobe la am du sobe mel nga dem ci wanaaw rek. ba nga jógee ba génn boo bëgg a jàpp gis lu tooy ci sa yére mbaa ci yaram te xamoo ba xam ci ndox mi nga doon raxase la wala daa bokk ca sobe sax su boobaa da ngay rek ne ci ndox mi nga rek la woon sobe dara du aajoo nga ngay def dara nga koy bàyyi noonu rek kon jàppal ne bu dara taqee looy sikki sàkk boo xam sobe la am du sobe waaye gisoo jëmmi sobe sa moom mbaa loolu ko wax taxa ñaaw njort da rek xamoo lu mu jàpp ne rek du sobe daal di koy doyloo bàyyi ko noonu wa man zakara ku fàttaliku najaasatun sobe bi asnaayu salaati ci biir julli ga xataxa mu dagg julli ga biinal imtiraa ci lu werante illam yakun dem nekkut yaxaafu di ragal ay yaxruja mu génn min waqti salaati yi ci waxtu julleem wa fala xataxa kon deetu dog isan boobee nee boo nekkee ba ci biir julli gi nga fàttaliku ne yow kat sa yaram wi am na sobe mbaa sa yére yi am na sobe mbaa fi nga taxaw di julli am na sobe nga xam ne kon wóor na ne moom sobe ngi ci kon dañuy seet bu fekkee waxtu yaatu na nga xam ne mën ngaa dagg julli gi tàggoog sobe si ñu amaat ci baraka kon faaw nga dagg julli ga dem tàggoog sobe si su waxtu wa xatee na ba nga xamee ne léegi xam nga ne yow amoo raxase sobe si mbaa waxtu wa xat na ba nga xam ne daal boo demoon di ko raxas itam bala ngaa tàggu solo si rek waxtu far jeex doo ci mën benn rakk sax su boobaa da nga wuyu rek ci julli ga sàmmoonte waxtu julli wa waaye bul ko dagg nag dem di ko raxasi kon jàppal ne boo fàttalikoo ci biir julli ne sobe ngi ci yow te waxtu yaatu ba mën ngaa tàggoog sobe sa ñëw amaat teb rakka kon day war nga dagg julli gi dem tàggoog sobe si ñëw julliwaat su fekkee waxtu wa xat na nag ba nga xam ne loolu xaju fi boo demee bëgg a tàggoog si itam bala nga am rakka rek waxtu wi jeex kon na nga far wér ci julli ga julli ga baax na waman salla ku julli bi xaa ak sobe li nisyaan ngir ak fàtte li nisyaanin ngir ak fàtte jaraagub doona waxat te zakarate mu fàttaliku ba andama sallama ci gannaaw bu mu salmalee fa innahu naka moom yoo it dana baamu fi waqt wa maa la nga xam ne salla julli woon na ko faqat dong xalat tifaaxil xuddamaay ci dëppoo mooy jiituña bu fekkee da ngaa julliwaale sobe bu sëlmal door a fàttaliku ne ah man kat julliwaale naa sobe waaye bi yoon na boo sëlmal ba tal koo fàttaliku kon julli googu baax na dañ bëgg rek bu fekkee waxtu wa jeexut nga tàggoo sobe si te baamu julli ga kon jàppal ne boo julliwaalee sobe ci kaw fàtte ba sëlmal door koo fàttaliku julli ga baax na dañu bëgg rek bu waxtu wa yaatoo te nga mën tàggoo sobe si nga tàggoo sobe si daal di koy baamu moom julli ga bu fekkee waxtu wa xat na mbaa waxtu wa xas na jàll nag du jarati baamu faslu li ak dog la fii ahkaamil wudu yi ci àttey njàpp àttey njàpp yi faratay la ci jublu haddu faraidil wudu yi li mu faratay njàpp xaddir yi xameef na ko kul waxal sabaxatan muy juróom-ñaar inda raisi fa kilifa ga al axdari te mooy abdourahman al axdari li mu faratay njàpp nee juróom-ñaar la ci boo toppee ko al axdari andee te yow ñëwoon ca te di xaa juróom-ñett ndax topp alimaamul xaw fii ma wàññiwaale woon xalil baaraami loxo ya leeraloon nañ ko foofa fa niyatun ba ci njëkk mooy yéene maanaam booy raxas kanam raxas bu njëkk ba foofu nga yéenee mën ngaa yéenee joox faratay njàpp mi mën ngaa yéenee dagan lu julli ak lépp lu mel ne julli mën ngaa yéene yëkkati am toj moom daal loo yéene rek cet yooyu mu baax waaye nag ca ba nga raxas kanam gi raxas bu njëkk ba foofu la ñuy yéenee jooju farata la waxasul wàccin ak raxas kanam raxas kanam gi raxas kanam gi farata la kanam gi nag daa am guddaay am yaatuwaay guddaay moo tàmbalee fi kawar baaxoo sax ci jëbi ba ci suuf sikkim bi yaatuwaay nag moo tàmbalee ci nobbee wóor ba ci nobbale te nga nemmi ko bu sëb jë amee ras ras wala bu say bu say bët xóotee wala fi bakkan bi tiim nga xam ne daa am ñaari pax ci suuf ak ak yàq dox seen diggante ak diggante bakkan beeg tuur suuf mi ak sax boo ñëwee li nga li nga mën a ñëwee ni la yàlla bindee yépp man nga war a nemmi ko kanam gi raxas ko raxas kanam googu farata la waaye din ak raxas loxo li mar fexin ba ci conco dafa wax loxo rek waaye ñaari loxo yépp lay duwalaale raxas loxo yu tàmbalee baaraam yi ba ci conco yi ëmb ko tuuti sax ndax yem ci conco yi kese daa xaw a jafe nga koy ëmb tuuti kon raxas ñaari loxo yi ba tey farata la muy wa mas war a faxtadi naga nga jub mbaa na nga gindiku masaa boobu farata la waaye dangay dem dellu si dem bi rek mooy nekk farata dellu si ko moom sunna lay doon daa ñu ko leeral ci sunna ya wa xaslu rijlayni ak raxas ñaari tànk ilal ka'bayni ba ci ñaari dojor ñaari tànk ñi ba ci dojor yi ëmbut sax loolu farata la wal fawru ak gaaw dañ koy firee gaaw nag waaye jubluwuñ ci dëgg-dëgg gaaw da ngay jublu sësale boo xasee tàmbali boo ko dagg dem di waxtaan mbaa nga def leneen bàyyi njàpp mi boo doon jàpp yàgg nga bàyyi ko di waxtaan ba neex la mbaa nga def leneen la nga doon def yàqu nga war koo tàmbaliwaat ndegam yaa ko tey bu fekkee fàttee taxoon moom du ko tee baax dangay ngay jàll rek waaye ndegam yaa ko tey moom sësale woo ko day yàqu te bu la yàlla bindee yéex nag moom nga xam ne yéex nga waaye sësale nga loo nopp teg la ci topp rek dal nay baax waddal ko ak ragg ga bi xëy na mel ni ci lu fen maanaam bomb fekkoon ngaa xëpp ndox rek bàyyi mbaa nga raay ko rek bàyyi te fekk nga mën koo raxas xam ne amul gaañu gaañu amul dara kon du baax kon booy wàññi fara tey jàpp nga ne yéene muy benn raxas kanam muy ñaar raxas ñaari loxo yi ba ci conce yi muy ñett massa bopp ca dem ba muy ñeent raxas tànk yi muy juróom sësale gi boo tàmbalee bañ koo dagg ci sa coobare ba kera ngay noppi mu juróom benn ak bomb sa loxo te ba nga xëpp rek bàyyi mbaa raay rek bàyyi mu juróom ñaar loolu mooy farata yi faslu ni ab dog la fi sunna ci sunna ya mooy sunna yi njàpp suma ata topp dikk na sunna ni ko sunnaam ya tamaaniyatan du lu ñu juróom ñett raxas lu ko moo di sag raxas yadan loxo lil ko waxi ba ci tikku jara ku nekkal waax ya di aji wattu xinda surooxi ko fasak tàmbali walaw kaanat ak doonte nekkoon nañ ñoom ñaari loxo yi daal max naam walaw kaanataa maxan booli seen taahiratayni di aji laab faq na nga xëyntu mooy na nga topp man ka nga xam ne waxaa watu na xil man xam-xam toppal ko wattu xam-xam moom daaneel way la daa wax ne sunnay njàpp juróom-ñett lañ ba ci njëkk mooy booy tàmbali nga raxas sa ñaari loxo yi ba ca fa ngay takk montar mbaa nga ne fa ngay takk jara bu dee jigéen doonte ñaari loxo yi set na wecc wecc itam du tee rek raxas ñaari loxo yi ci bi ngay tàmbali moom sunna la te sax bu nekkoon ndab lu ubbit ngay as dañoo ndab la raxas xay ñetti yoon door tàmbali as gën nag mooy benn nga ber ko raxas ko ñetti yoon ba ci dikku ko boolee mu juróom waaye nag boo boolee ñaar loxo itam raxas ko ñetti yoon mu baax ba tey sax boo boolee ñaar loxo yëpp raxas ko benn yoon di dee sunna si am na màgg mird na nga galaxndiku kazaniki ni istan shiq na nga saraxndiku kazaniki ni istan sir na nga fiiru waru data nga delloo masal masa li ra asika ñeel sa bopp waaw da te nga limaale masal udni masa nopp ba bokk na ci sunna yi galaxndiku bokk na ci sunna yi saraxndiku bokk na ca fiiru bokk na ca delloo masa bopp bi ndax da nga bopp bi boo koy masa da ngay dem dellu si dem bi nag mooy farata waaye dellu si boobu moom sunna la bokk na ci sunna yi masa nopp yi waaye nag li jiitu masa nopp yi mooy yeesal ndox ma moom lay wax naa wa jaddit na nga yeesal alma ndox ma lil udunay ni ñeel ñaar nopp ña maxan boole yeesal ndox mi mooy bi nga masaaye bopp bi say loxo tooy ba tey nga bañ a doyloo tooyaayu loxo yi xanaa yeesalaat ndox mi maanaam asaat ndox mi yees def ci baaraam yi nga xam ne ñuy bëgg a masaa noppi ndox mi yees mi ngay defaat ci baaraam yi ngi door a masaa noppi loolu moo tuddee yeesal ndox loolu nag sunna la masaa noppi itam di sunna warakti bante nga toftale al farata farata ja takun kon nga nekk mut tabi'an di aji topp toftale faratay njàpp mi ni suñu borom tuddee ci alxuraan ne faxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ilal wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayni noonu ko alxuraan waxee nga xam ne daa jiital ci bu dee farata yi raxas kanam teg ca raxas loxo teg ca masaa bopp mujj tank yi nga tegalee ko noonu loolu sunna la boo ko bàyyi rek bàyyi sunna du tee nag boo jàpp tàmbalee ko ci tànk ya mbaa nga njëkk raxas loxo doo raxas kanam yépp du ko tee baax ndax da ngaa rek mooy da ngaa rek tegale farata yi waaye du ko tee baax kon ba weñu sunna yi nga ne raxas loxo yi ñetti yoon ba ca ci ku jëree muy benn dalax li ko ñaar sarax li ko muy ñett fiiru muy ñeent delloo masaa bopp bi muy juróom yeesal ndox mi mooy def ndox mi yees ci baaraam yi bala ngaa masaa nopp yi mu juróom benn masaa nopp yi mu juróom farata yi mu juróom ñett wa man nasiya ku fàtte minal ahdaay ci ciri njàpp ya fardam farata fal xukkum kon atte ba bi zalika ci loolee xukkumaan ñaari atte la xëyan na nga wattu nee na boo dee jàpp nag am ca farata joo xam na nga ko bàyyi mel na ngay jàpp fàtte raxas sa day joor ci misaal mu ne kon am na ñaari wàll am na ñaari atte yu bokkut fa in yëkkun dem dafa nekk xadd tazakkara di fàttaliku bil xur ànd ak ku jege mooy ci lu yàggul rek la jiwlu faalahu kon mu def ko maxal lës yi ànd ak la nga xam ne jaraa dawoon na mooy xewoon na baax du ca gannaaw ba nee na bu fekkee teel nga koo fàttaliku te dafa góor itam njàpp dañu bëgg boo defee la nga fàtte woon nga baamu la ca toppoon ni ki li ma ko misaale bu fekkee da ngaa fàtte woon raxas sa loxob ndeyjoor ca ba ngay jàpp nes tuuti nga fàttaliku ko fi saasa dañu bëgg boo dikkee boo raxasee loxob ndeyjoor nga jàll baamuwaat loxob càmmoñ jàll masa bopp ba jàll ca nopp yi jàll ba ca tànk yi mel daal ku jàppoon ba tollu foofu rek ndegam yàggul loolu la ñu sopp da sax boo defoon kese la nga fàttoo yem ci mu baax waaye taamu nañ daal nga bañ a yem ci moom te baamuwaat la sësan ca moom ba njàpp màgg mel ne ku jàppoon ba toll foofa loolu ak sopp la da jëmmi li nga fàtte mënu ko ñàkk def moom ndax léegam faratal mënta ñàkk loolu nag mooy bu fekk yeggut mooy da nga ko gaaw a fàttaliku ba in yekkun dem dana nekk min ba ji tooli zamani ci gannaaw yàggu jamono faalahu mu def ko bi ñu yét ànd ak yéene falta tonni na nga sonne xam bu fekkee da ngaa fàtte ab cir njàpp mi tam doon farata te nga ko koo fàttaliku nag kon moom boo dikkee moom ni nga fàtte woon dong rek ngay def du aajowoo ngay baamuwaat la ca toppoon loolu nag ko wutaleeg bu yàggut bu yàggutoon bi yoon yàgg ñu xas ne yàgg moom ni misaal mu dee loxoom day joor boo dikkee moom rek ngay def du ngay baamuwaat la ca topp laakin naxu waaye moom nag xale yi war na ko ay wan yi damu baamu maa la nga xam ne salla julli woon na ko min xabli yi ci ak jëkkam li tuxurin ngiruk laab dina gum ñàkkeef na ko mu ni waaye nag ba nga fàttee farata ci njàpp mi ba noppi dem julli gannaaw ba nga door a ko ne kat am na farata joo bàyyi woon kon kat ne na julli ngay julli woon njëkk ngay fàttaliku farata ji julli googu da nga koy baamu ndax da ngaa mel ne ku ko julli rek te jàppoo ndax farata moom boo ci benn rek la nga doon def lépp day mel ni defoo ko kon nag boo fàttee farata dem julli gannaaw ba nga fàttaliku ko ko boo demee ba def farata ji nga fàtte woon ci njàpp mi da ngay baamuwaat la julli woon lépp fa in tarak sendéem bàyyi nga sunnatan sunna yaa rajul yowaa ji fa ci na nga indi mooy na nga dikkee bi xaa ca moom li ajli maa ngir la nga xam ne yustaqbalu def na ko jublu ci ay julli bu fekkee ne bi ngay jàpp da nga caa fàtte sunna bu fekkee ba ngay jàpp da ngaa fàtte mel na galaxndiku mbaa saxandiku mbaa masaa noppi kooku moom danga bëgg rek saa yoo ko te jàpp ne sa njàpp moom doo gaaw a toj sa njàpp ne fës nga koo téye ba defaat ci jaamu yàlla dañoo bëgg kon nga dem defi sunna soosee nga fàtte woon ndax booy def ay jaamu yàlla ci njàpp mi fekk ay sunna mat ndax xam nga ne njàpp mu matalay sunna moo gën njàpp manque sunna waaye manque sunna moom di ca wàññi dara bu fekkee julli woon nga itam la nga julli woon baax na mooy walaa tuxiidu waaye nag doo baamu maa la nga xam ne mabaa woon na wa faata te mu faat li ànd xoo ngir naka bàyyi sunna laa yubbatilu du yàq asalaata julli ga maanaam bàyyi sunna moom di yàq julli mel na nga jàppoon fàtte masaa say nopp gannaaw bi nga jullee takkusaan nga fàttali ko ne kat ba ngay jàpp masaawo woon tey nopp julli toog sàng dara sikku ca xanaa rek bu fekkee sa njàpp mi yaa ngi koy téye nii bëggoo koo wàcc léegi nu mu laa dem ci wan a wat xëy na jaamu yàlla ñu bëgg rek nga dem léegi daal di masaa nopp yi ndax booy defaat geneen jaamu yàlla fekk nga amee njàpp mat sëkk ay na wa in nas yi tandem fàtte nga lum xatan ab déniir déniir ci yaram wa fax silhaa nanga ko raxas wax dahaa moom rek bi ñu yët ànd yéene nee bu fekkee doon nga raxas cër ba sax ni ki tànk ba mbaa loxo ba mbaa feneen ci sa yaram daal doon nga ko raxas waaye da ca am digg boo xam ne toowut loolu mooy ab déneer digg ba kat la muy tuuti tuuti fi mu toll nii moog fàtte cër bi moom ñooy moom day aajowoo saa yoo ko fàttali ko nga daal dem raxasi ko da nga yéenee àggale njàpp mi daal di koy raxas te sax bu fekkee julli nga julli ko daal julli nga du baax da koy baamu kon daal bu fekkee da ngaa fàtte ab digg boo ci cër ba ñu wax la ne la demal ko bu fekkee jësu ngaa julli ci gannaaw ba nga ko fàttee kon boo ko raxasee ba noppi ngay baamuwaat la nga julli woon lépp mooy sama ko topp war na la am tuwaay da nga baamu kullama lépp loo xam ne sàllay taxoo julli woon nga ko min xabli xas ni ci njëkk ak raxas xotti na gog war leef na ko hmm. lépp loo woon rek ci njëkk ngay raxas digg nga fàtte woon loolu lépp da nga koy baamu wa in dakar si ndem fàttaliku nga sunna na sunna baax da shuroo ci gannaaw tàmbali nga fil ci raxas kanam kastil sooxati ni ki saraxndiku falaaru jooxa kon deetul dellu min xabli tatt nii naka ci njëkk sag matal mooy njëkk sag mottali laakin waaye yaa fataa yoo cam si xul ful xulamaa yi wuute ñooy xam ne xat ataa dikk na fi zaaka ci loolee nee na bu fekkee da ngaa fàtte sunna ba nga demee nag ba tàmbalee raxas kanam ga kon kanam gi moom farata la nga fàttaliku sunna soo xam defoo ko soo demoon ba tàmbalee raxas sa kanam fàttaliku ne talaxndikoo sax saxndikoo ci misaal su boobaa kon wax ji gën a wóor mooy doo bàyyi kanam gi ndax muy farata la di dem ca sunna soosee da nga wéy rek ba àggal nga wéy rek sam jàpp ba àggal boo àggalee léegi def sunna sa jooju wax nag moo gën a wóor daa bu wóotu waaye jàppa jooju moo gën a wóor mooy soo tàmbalee woon raxas sa kanam fàttaliku ne ci misaal garab di ko mbaa sax di ko mbaa mbaa raxasoo loxo yi ba ngay tàmbalee ko it kanam gi rek ndax moom faratal doo ko bàyyi di dem ci sunna boo àggalee nag lay door a def sunna soosu am na wuute waaye loolu moo ci gën a war li ab dog la fil fadaili ci ya li bëgg wax na ngëneel yi njàpp nga xam ne boo ko toppatoo moom njàpp ba def ngëneel ya ba gën a yokku amma fadailun daal ay ngëneel loxoo ñeel njàpp fa tasmiyatu moo di wax bismillah wa ba àndaxaata nekk na ci gannaawam astiwaaku sojju naa ina nga sorenteeg almasiyata mooy yàlla sorenteel ak mooy yàlla moom daaneel way la daa wax ne bokk ne ci ngëneel ya booy tàmbalee njàpp nga wax bisimillahi am na ñu ne doo àgg ci arrahmaani na ñu ne ci àgg ko defee tam soccu bokk na ci ngëneel yi li gën ci soccu nag mooy bala nga tàmbalee njàpp ngay jël bant bu tooy ndegam wóoroo mbaa bant bu wow boo wooree moom bant boobu rek ngay jël ndax dañuy bañ boo jëlee bant bu tooy fekk nga woor boo muccoo ndox ma rek koor gi dog ko defee nga nag ba bañ ji set nga galax ndiko tuur door a gën ci soccu teew nag boo bàyyee bay galax ko jël sa baaraam fompe ko bañ itam du ko tee baax waaxut da na nga lim xaslatan ak raxas atat goo dikk na siyaadata mbir mu nu ndooleen xalal ulaaj ca bu jëkk ba fadilatal ibadati muy ngëneelal jaamu ga ba tey nee na bu ñu nee kanam danga koy raxas ñetti yoon mbaa loxo yi ñu ne da nga koy raxas ñetti yoon moo tax mën naa sax xanaa it jublu naa fil wàcc ci kanam ga wa fil yeddi ak ci yaari loxo ya bu ñu nee kanam da nga koy raxas ñetti yoon yaari loxo yi ñetti yoon bu ci nekk xam ne raxas bu njëkk ba bu fekkee mat na te daj moom rek moo doon farata ja ba ca topp ngëneel la ba ca toppaat ngëneel la. bu fekkee bu njëkk ba dajut mbaa matut bu ñaareel ba du mën a ñàkk waaye su fekkee matale na dajale moom bu ñaareel ba kon ba ca topp rek ngeneen la kon jàppal ne raxas boo raxas rek te fépp daj te mat rek ba ca topp moom ngeneen la moo xam ne ci kanam nga la moo xam ci yaari loxo yi na waxaaka saa likki ni ak bu toftale ga du na may na ci lu bokk na ci nga njàpp yi nga tegale sunna yi ak farata yi nañ tegaloo ñu tegaloo noona xam nga wees woon nga ne tegale farata yi ci bopp moom sunna waaye léegi nag nga dugal sunna yi ci biir farata yi ñu bokk tegaloo nañ war a tegaloo ci jàpp mi ah, loolu lay wàññi nag ci ngëneel yi wal batu ak tàmbalee ga bil muqaddami ci njëlbeenu bopp ba al mu'taadi ba di buñ baaxoo fi masira i masira si ka ci masaa sa bopp bi iqtisaadi ci ak diggu doomu ba tey nee na booy masaa bopp bi nga tàmbalee ko ci jëbi fi kawar baaxoo saxe ba ñëwaataat ci bi loolu ngëneel la booroon masa bopp tàmbalee ko ca dox ga ba delluwaat ci dox ga yi du tee mu baax waaye tàmbalee ci njëlbeenu bopp bi nag fi kawar baaxoo saxe ngëneel la waxilatul maa yi ak néewub ndox ma xalal xob bi ci cër ba ba tey booy jàppoo ak booy sangu sax farata ñoo bokk loolu bokk na ci nga yéene ndox mi nga bañ koo yàq bu ne rek ndox mi bari na def loo bu dee dañoo bëgg rek nga def lu yem rek ci cër ba nga xam ne nit ñi am na ñoo xam ne seeni cër dafa tuuti am ci ñu seeni cër rëy am ci ñagas yaram am ñu nooyle kon kenn ku ne day def lu ci moom rek def lu yem te bañ nag waaw loolu ngëneel la ngay bomb bu baax ba nopp ndox mi rek yem kese moom bañ a ëpp loolu ngëneel la kazaliki ni taqdimu yum naa ko jiital sam ndeyjoor alal yusra ci càmmoñ ba kusan na ko jàpp ba tey lu am ndeyjoor ak càmmooñ niki ñaari loxo yi ak ñaari tànk yi lay ngëneel mooy nga njëkke bopp ndeyjoor door a jàll ci bopp càmmooñ wa xalilan na nga xalil asaabi al yadayni baaraami yaari loxo ya xatman ci lu war ba tey xalil baaraami loxo yi lu war la dañ ko ñëwoon ci téere bi nga wees muy tasawudu si xaar sax muy farata ndax topp alimaamul xaw fii waaye lu ci gën a nag mooy warugar la warugar na xaw naa muru farata waaye bokkuñu farata mooy loo xam ne soo ko bàyyee la nga doon def day mel ne ku ko defut warugar nag mooy boo ko bàyyee la nga doon def baax na waaye am nga bàkkaar ci bañ nga ko mañ a def xalit baaraam loxo yi nag mooy diggante baaraam bu nekk moroom ma ni ko yàlla bindi daa sore nga nemmi ko ko ba àggale fa sa loxo ndox loolu mooy xalil ga warugar la wa bu def na ko soob fir rij lay ni ñaari tànk ña baaraam tànk yi moom ni ko yàlla bindi daa jege moom nag moom nga xalil ko maanaam diggante baaraam bu nekk moroom ma nga nemmiku ko bu baax ba ndoxam loxo àgg fa dañ koo sopp waaye àggul ci warugar àggul sax ci sunna dañ koo sopp rek wa aw jaboo waral nañu ak tax taxliila xaliil ga fil xafiifati ci aji woyof aydan ba tey mina lixiyati ci sikkim ba lal kasiifati waxuñu aji fatt ja ba tey nee na bu dee fii ci njàpp dañ fiy teqale sikkim ba fatt ak bu fattut bi fattut mooy bi nga xam ne boo dee xool di seen fa kawar ga saxe ba fatt nag mooy ba nga xam ne boo dee xool doo séen fa kawar ga saxee kooku nag nee na bu fekkee sikkim ba dafa woyof nga xam ne boo dee xool di séen fa kawar ga saxe day war boo dee jàpp nga yëngal ko ba ndox ma jàll ca biir bu fekkee sikkim bu fatt la nag moom bu awale sa loxo ca kaw rek raxas cat yi rek mu daal doy du aajowoo di jéem dugal ndox ma ca biir waaye nag xaana it jublu naa fi li ma doy ci njàpp nde amal xusul daal ca ngaay fa yoo jógu def na ko waral fii maa ci ñoom ñaar ñëpp fii maa ci la nga xam ne yejjuloo dana feeñ ñu ne bu dee ci njàppale am boobu teqale sikkim bi fatt ak bi fattut waaye bu dee ci càngaay moom ñaari sikkim yëpp a yam bu dee sangu farata moom sikkim beeg bopp beeg poqtaan yeeg naq beeg fépp fu am kawar rek dañ ko war a yëngal ba ndox ma jàll ci biir xam ne foofu ci càngaay duñ fa xaajale sikkim bi fatt ak bi fattut fasul li ab dog la fin nawaqidi ci way firi njàpp mooy yi nga xam ñoo yàq njàpp nawaqidul wudu way firi njàpp ata dikk nañu anhum jële ci ñoom ahdaasan mbi ñuy ay toj wa asbaaban ak ay sabab xalaamaa ci kaw la nga xam ne xadd sabata sax na nee na njàpp ñaari wàll lañ am na ci yoo xam ne ay toj lañu bu wér wér am na ci yoo xam ne dañuy sabab toj waaye dooru ñu jëmmi am toj ahdaasuhu ay tojam bawlun mooy saw wariixun ak aw gelawal mazyun ak mazyu wa xaayitun ak xayta aydan ba tey kasaaka nag noonee waddiyun waddiyu yan way boole na mboolem toj yi lépp loo xam daa génne ci bunt suuf bi wala mu génne ci bunt saw mi te doon la fa baaxoo génne te génn ci wër mën naa doon kenn ci su boobaa dana toñ jàpp ma mën naa nekk saw mën naa nekk gelawal ci buntu suuf mën naa nekk xayta yooyu moom miin nga leen masi dana ko firi ci kanam bu fekkee ni góor gi day xalaat jigéen am xelam nekk ci wàllu jote góor jigéen ba ab sawukaayam jóg mbaa fa muy foog jigéen ba ab sawukaayam jóg kon xëy ndox mu weex mu ñàkk far génn ca moo tudd masiw kooku dana tañ jàpp wat yi nag moom day nekk ndox mu weex te far ki koy ëpp génn nag mooy ku tawatoon ba deretam manqué mbaa ko amee sedd ñu toll jamonoy sedd mbaa mu yenn woon lu diis ba yenni ko ko mbaa mu seere di mu ci wanaw ay fani fan mel noonu daal mën naa tax bu demee bay saw ba saw may jeex ci mujj saw ma ndox mu weex moom mu tefar génn xëy na itam mu dem bay jàpp sax mu door a génn bu fekkee ne nag moom nekkul lu taxaw moom day génnal rek day day di ko di ko gis rek kon danay toj njàpp ma yi mu wax yëpp sax loo xam ne moom yàllaa ko bindee muy awuré di daanaka saa yu nekk day taxaw moom lépp daal day taxaw moom ak ku mën doon ci rek du tojati jàpp ma xaa daañu sopp rek bu fekkee ne yooyu jamono ndox yomb na te it séddul boobu naa. jàpp mi day metti ci man ñu sopp rek julli bi nag mu jàppal ko jàpp njàpp boppam daal balaa julli rek jàpp njàpp mu yees waaye bu loolu moom dëgg mi awéra dee koy indi te saa yu nekk daanaka mi ngi taxaw moom kon di yàqati jàpp ma masi me ne moom daañu ko leeral bu génnee ci moom bu yem ci tam jàpp ma waaye da ci boole waale war a raxas fa sawukaay ba saxee ba fa mu yem te ni ko diwal te xamuñu tax doon taqu ci itam du tee mu raxas rek léegi mas yu génn na ci moom fa sawukaay ba saxee ba fa xëy na dina ko wax léegi asbaabuhu ay sababam nag moom firim jàpp al ixmaaw moo di xam wan na mu ak nelaw ak taqiiru yu aji diis wa sukkur ak màndi wala junoon aku ndof mooy say fax fad na nga wattu yaa nabiran yow aji xellu yi nga xam ne ñooy sabab nag toj mooy tàggoog sago lépp lu ko tàggale sagoom rek bu sago sa dellu see say ba mu ndax xamuñu ba xam ndax duñ xam ba xam ba mu tàggoog sagoom def na fa luy toj jàppam déet mel ni xam xam nga xam koy def da ngay tàggoo sago nelawu diis nelawu diis mooy nelaw daa am doole ba nga xam di nga sa loxo li nga yor ci sa loxo bu rotee doo ko yëg bu kenn waxee yow kàddu gu xumb doo ko dégg nit mën naa dugg ba génn doo lu mel noonu ku jàpp noppi def ko nelawu diis a ngoog sooy woo mu jàppaat wala mandi mandi moo xam day sàngara moo xam day leneen loo xam ne du sàngara niki naanu soow rek mu am doole màndi mbaa garab ak tubaab yooyu yëpp dangam tàgg woon naa sagoom rek balaa jëfandikoo wàlla rek njàpp mën na jàppaat ak ndof ndof boobu say koo xam dafa say bu say mu jeexee rek say woo mu jàppaat waqu bu la tun foon bil an fii ci bakkan aw wil fami wala ci gimiñ minan nawaaqi bi bokk na ci way firi njàpp bi xawli xar mi ci waxi sang ba nee foon ci bakkan moom mën nga koo teqale ak bu yi ndax bokkuñu fóonu bakkan moom mook laal dana ko wax léegi ñooye moo su fekkee bu muy fóon ci bakkan boobu bànneexu la ci jublu woon faawu njàppam toj bu fekkee jubluwutoon bànneex waaye far na ci am bànneex ni ko danoon bu a tàggoo di fóonante fóonu tàggoo far ci am bànneex tutee bu toj bu fekkee nag fóon nga jublu ci woon bànneex te amu ko ca moom du toj ni ki fóonu yërmande wala fóonu tàggoo rek te kaw mi bakkan nag ci kaw mi bakkan waaye ah, bu dee foonu gémmiñ moom nee nañu faw de firi njàpp ma waaw foonu bu foonu nag dañoo jàpp ne rek li ci ëpp ku koy def bànneexoo tax mu di ko def loolu moo tax ñu ne faaw day doon jàpp ndekat nee nañu kat bu ci jubloo foonu bu yërmaande mbaa tàggoo itam la muy doon doon boobu gémmiñ du tax njàpp ma toj wa mas su mar atin laalu jigéen li far jixaa ñeel ab sawukaayam kazaniki la bi sharti iltaafi ci sartu lonkal baaraamu faraaxi na nga sàmmonteeg almaq sa jàppukaay ba jigéen bu fekkee dafa jàpp noppi ab sowkaayam te yëmul rek ci laal ga waaye da caa mu ci biir kon jàpp ma toj na bu ko rek nag waaye ngëbu ca dugal baaraamu ci biir kon nee na ñu wax ne ak nu mu ko mën di laalee daal tojut waaye fii moom wa massuka ak sag laal almarata jigéen in xasarta ndéem nga li lëbdatin ñel bànneex aw laa wala jubluwoo ko woon waxat wajatta te nga am ko dafa wax jigéen waaye góor gi noonu la takkal rek ne muy góor gi muy jigéen kon xam ne gannaaw ba mu jàppee na laal moroom ma bu fekkee jëmmi laal ga bànneex la ci jublu woon kon mu am ko caa bañ ko caa ama yam moom toj na bu fekkee jublu ci woon bànneex waaye far na ko ci amit ba tey toj na benn rek moo tojut mooy laal ga jublu ci woon bànneex te it faru ko ci am kooku rek moo dul toj kazaaka naka noonu masu dakarin laal sàkkara yaa saax yoo sama àndaale bi bapt ni asbuhika ci bis sa baaraam aw du raaxi wala ci teng la ba tey góor bu laalee sawukaayam te laale ko ci tengam mbaa li xong ci pegg teng yi mbaa li xong ci baaraam yi mbaa xong ci pegg baaraam yi waaw bu la laale ab sawukaayam te laal ci jëmm ja su booba njàpp ma dana toj su ko laale woon lu ñuul li du toj bu ko laaloon ci kaw tubay mbaa kaw silib nga xam laalu ci jëmm ja ba tey du toj bu laaloon sawukaayu jàmbur it boroomu góoram it ba tey du tax mu toj wa muuqinun aji wóolu bi tuuri ci laab chàkka joj sikki sàkk na fil xaddisa cim toj aw jaba waral ci moom alwudo njàpp man ka nga xam ne baxasa bés na xam-xam ci sartub in lam yëkkun ndem nekkut mu was a sandi aji jax-jaxee xel muxtabilan tey aji yàqu am xel fala ihaadatu kon déetu baama xale yi ko war mos jaran lu mën di doon nee koo xam ne wóor na ko ne jàppoon léegi li ñu sikki mooy ndax njàpp moom toj na wala tojut kon bu fekkee am xelam dara sikku ca say moomu jàpp ne toj na daal di njàppiwaat meneen ne gum sikki sàkk am na te xelam baax na rek moom na jàpp la gën a wóor mooy njàpp ma toj na mu daal wëlbati ko jàppiwaat bu fekkee ne day jax-jaxi jax-jaxi mooy bari lu muy sikki sàkk muy jeexi jaaxa loolu daa mën yàq diine lool su fekkee loolu bis dal ko moom du jénnal bis mu mu dal ko kon say boobu sikki sàkkaatee ci mu naa toj na am tojut mu jàpp ne tojut rek daal koy doyloo ndax jax-jax yi moom daa baaxut boo ko toppee rek mu yàq sa diine wa aw jabat waral na ahlul nazari ñooñ settantal xam-xam lil masi ñel masiyu xasla zakari raxas zakara min dunil unsa yooyu ni ci dudul ñaari waa yàlla ya doon naa ko wax léegi masiyu mooy ndox mu weex mi nga xam ne mooy génne ci sawukaay góor gi wax ne na jigéen ba tey dana ko di am su fekkee génn na bu dee dañ koy digal mu raxas sawukaay bu fa mu saxee ba fa mu yem doon ci sax bunt ba képp la yem ci toq itam te ñoo digal rek loolu ñaari waa yàlla yi nag moom bu fekkee takku ca du aajo raxasaale waaye bant sawukaay moom dañ ñoo digal raxas gi doon ci sax takku ca na ca boole yéene itam moo gën a wóor ndax ndegam joxañ loolu ndigal ku yebu boole ci yéene